këru képp koo xam ni sa yaakaar nag ci sëriñ Touba la nekk nga nekk fenn foo xam ni jantub suñu borom bii dina ko tiim ñu di ko waajal ren ba déwén nga fexe ba ko ci liggéey bii sëriñ bi nee na kooko dal murit bu mu dal bu jortee ne amul gàcca dafa xamewul gàcca rek waaye sëriñ bi neen loolu murit yi gàcca gu mag a mag a mag la gu rëy rëy rëy kon sëriñ bi nee na yéen nga xam ni ngeen a bëgg jàppale sëriñ bi jël ay kàddoom tasaare ko nag ci réew mi ñëpp ba ci bitim réew sëriñ bi neen lu ngeen defoon nag lu dul loolu sëriñ bi nee na kon du wax ak yéen de sëriñ bi nee li tax mu wax daal baatum ndigal bii ñu amul lu dul moom ku leen ko mën a jàllaleel ba àdduna sépp jot ci noo dikke rek ca xaraamul ànd nañ ca ak yow. sëriñ bi nee na kon mu ngi leen di sant yéen waa rajo bii yéen waa rajo bii sëriñ bi nee na moom day bu sañoon bu dul liggéey sëriñ Touba yi rek duñ wax akub télé ndax luñ dal ci àdduna si ab télé ñu ko teg bonoon nañ di déglu rajo yi di ca dégg lu bon am ñoo xam ni bëgg nañ lu bon ñu di ko jéem waaye mënuñu ko de bi tele bi ñëwee nag moo leen ni la ngeen daan dégg te bëgg ko te muy lu bon nii lañ koy defee nag waaye mel na ne nag ab safaan da cee amaat nag léegi télé bi day ñëw fa ñuy defee lu baax ndax dara gënalul yàlla lii ngeen di def ak Serigne Touba mii koy deflu nag. nga fab ko nag dem ña daan dégg lu baax te bëgg lu baax te mënuñu ko nga won leen ni leen lu baax a ngi nii te nii it nag lañ koy defee nag sëriñ bi nee na googu wet buñ ko firee noonu rek mu baax jërëjëfal sëriñ bi nee na kàddu yi daal jërul bari li matoon a bari daal mooy jëf ji ndax lii ngeen leen jëfloo moom seen bañ la. bu ko seen maam doon def du am turam bii lakk ko may nag mooy jëfe ndigal bàyyi tere rek moo tax nag lépp ñu teg ko ci loxo Cheikh Ibrahima Fall rek sëriñ bi nee na kon ñoom waxi kese rek loolu day nee na du ndam de ci ñoom ci ñoom sëriñ bi nee ñoom daal dañoo war a jëf ñu di leen waxal. waaye bokk na ci aada yi tam ñu baax ñi nanguwuñ ko jëf ba noppi gàddu soo làmmeñ nag di damoo jëf ja waaye sëriñ bi nee na ñoom nag bi ñu jëfee ba noppi dañoo bëgg bu seenu làmmeñ jógee na jëm ci sant jëf ji rek ak soññe jëf ji nag waaye waaye dama wuñ kàddu yi de sëriñ bi nee na dama wuñ kàddu yi de dañoo amul pexe ne kon kenn du dégg seen baat sëriñ bi nee na kon mu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi bëgg a jàppale sëriñ bi ci liggéeyam bi yàlla na ngeen ko yàgg a def ci barkeb Cheikh Ahmadou Fallilou Fall barkeb Cheikh Ahmadou Moustapha Fall barkeb Cheikh Ahmadou Aminta Fall